ñaan lii ñu jëm si yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin ñaan jàmm ci réew di ñaan jàmm ci réew di ñaan jàmm ci réew di gërëm nag suñu autorité sénégalaise yëpp plus particulièrement ceux qui sont ak Guédiawaye parce que taxawu nañ ñu ci gauche ci droite ku ci mel ne ministre Lat Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal yan bi mu yenu yàlla ko yàlla ci oyofalal di gërëm Ahmed Aïdara di gërëm Néné Tall di gërëm Aïda Sow Diawara di gërëm euh, comment il s'appelle Malick Gakou di gërëm Aziz Ndiaye ak famille bi waa kër tout suñu papa Aziz Alé Ndiaye Alé Ndiaye di gërëm waa këram yëpp bàyyi ñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw parce que gis nañ taxawaay bi di gërëm écrit yi nekk géejawaay yëpp parce que mënuñu lim ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér fii ñu jëm nag ku ci nekk xam nga yoonam fi ñu jëm moom dañuy dem rek te dem ci kanam lañ jëm li ñuy wuti ci kanam yàlla ñu ko yàlla yombalal yàlla na doon suñu njiglaay kii ku ko xam-xam ne bërekat la ku ko xam-xam ne c'est ku ko xam ne xale bu yaru la ku ko xam-xam ne xale bu am diine la ku ko xam-xam ne xale bu calme la ku ko xam xam teeyaayam ak dalam kon nit looy wax ci moom na dëgg rek tax bàmmeel dara xajatul du dëgg yàlla nañu la yàlla la ko jar adversaire nag suñu doom la xëy na moom rakkam la mais man miy wax moom suñu doom la parce que am naa doom ju maasee ak moom wala doom ju ko mag ma bëgg li ñuy def làmb la dañuy bëri suba dañu war a tuddante doom suba dañu war a demalante suba dañu war a waxante mais lépp lu ñu dem nañ ko teg saraatal mustaqima bu suba bu ñu gisantee bu ñu rus nit ki nag mën nga seq moom am ak moom bés bés boo am ak moom aussi na doon jàmm ba boo leen ci jógee mën a seq jàmm nit nag ay jullit lañu ku la tooñ baalu la nga baal ko mais nag la mu la tooñee woon doo ko fàtte kon lépp lu ñuy defante wala lépp lu ñuy waxante yàlla na doon li gën ci yàlla doon li gën a rafet ñun waaw suñu suñu xarit suñu voisin suñu frère suñu lépp mooy door a muy jaw géejawaay fii ku ko xam-xam géejawaay bisimilah fadal fadal fadal jaajëf kon gars li ñuy def moom mooy heure bi dafa xaw a sot di xaw a ah dafa xaw a kii tuuti dañuy gàttal rek bi ñu def mooy dimanche bu soobee yàlla ak yonent bépp géejawaay maan bépp supporter Lac de Guiers ñu nekk au Sénégal ñu nekk à l'étranger le diaspora bi ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu bëgg ñu ñaanal yàlla may ñu ndam ma bëgg Sénégal géejawaay ñu mobiliser wu ànd ak suñu doom ànd ak suñu jarbaat ànd ak suñu rak gunge ko mu dem jëli ndam bi mu dem jëli ndam bi ñëw indi ko géejawaay te bu soobee yàlla ak yonent bi yàlla dina ko def parce que seytaane waxul dëgg mais yàq nay xalaat ñun ay sénégalais lañu fi jàmm rek ak keneen ku fi def lu dul jàmm di ko gis kon yàlla nañu yàlla may jàmm xale bi nag suñu doom la suñu jarbaat la suñu sër la on le menace pas ko indexé mais nag nit boo nekk ak say kilifa da ngay dal boobu dem fu sori dal dafa baax ci nit ndox mi ñu naan sax bu dalu doo ko mën a naan àndal ak dal ànd ak tey ki ngay jëflanteel bu dee ñaari fan moo la ko magee jox ko li mu moom sa cër bëri ngeen ko sport la. bëri la nag mën ngeen waxante lu nekk mais am na loo xam ne suba bu ma la baalu àq ma bañ ko fàtte nit nag day baale mais nag nit bu fàtte parce que ay jullit baale ba ma tooñee ne ma baal ma àq ma baal la mais lan ma defoon du ma ko fàtte te fu ma la gisee sama xel dem ci loolu mën na ci bañ a am dañuy làmb yàlla dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamina que le maire gagne que la déguerre gagne de combat amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf naa kàddu yi am na solo yaakaar naa sport la def rek mais léegi suñu papa dafa dugg si waaw suma père père Diaw daal suñu baaw maa ngi su baax a jaajëf waaw di la ñaanal jàmm moom suma papa mhm. mais nag comme moom mooy kilifa jotaay balaa may ñëw moom dama bëgg a dem ci Mouhamed Ali Ndiaye mhm. parce que su ko defee nag moom ma jox ko mu def ñaan parce que fii yaakaar naa ci Guédiawaye ku tudd Guédiawaye moom sa xel ci ñi muy dem moom da cee bokk mhm. moom Père Diaw parce que taxawaay la quoi parce que nit sa dëkk rek nga am doxal ma kon su acca ça bouge pas ci tu la musique waaw ngi nuyu ñëpp <laughs> kenn ku ci nekk euh, ci turam ak ci santam waaw et puis di leen ziar bu baax nag wolof nee na nag lu dul jàmm jàmm ko gën mm-hmm. et puis di kontaan trop nag ci teewaay bi fii euh, jóge France ci bu yàggul je pense que juste bi weer bi di dee mm-hmm. pour ñëw nag assister li nga xamante ni moom mooy dernier réglage pour la de d'abord di remercier ñi nga xamante ni ñoo ànd di liggéey parce que Lac de Guiers liggéey bi liggéeyu équipe la un travail d'équipe Rhône coach Cheikh Fitness Club Jules ak man mi du ñu réeroo ci dara depuis du début à la fin ba fi ñu toll nii réeroo dara programme la boo xam ne nag yàgg nañ ko di topp parce que Lac de yàlla def na dafa nekk sama fils nekk sama féete loolu yàlla ko def mm-hmm. yàlla boole ñu depuis ci combat Eumeu Sène amul benn jour boo xam ne du toog te déggoowuñu ko téléphone amul dara lu muy def te woowu ma waxtaan ak man ba ci xale yi muy àndal di liggéey sax pour dire que ni daf may woo ñu waxtaan ci programme bi donc liggéey la boo xamante ne rek depuis longtemps mi ngi continuer xamoon ne nag ni jour bi dina ñëw mais tey dañuy sant yàlla bu baax parce que sant yàlla bu baax mooy ñu yore athlète préparé ko ba agsi fii di naan alhamdulilahi rabil alamin ñu toog xam ni tey suñu athlète pare ci bis mu jëm mooy dimanche parce que dimanche soreetul am adversaire nag boo xamante ni comme li may wax toujours rek adversaire de taille la Siteu xale la boo xam ni dafa def ay preuve am kenn puusu ko dafa def ay preuve am ba tey ba agsi magam ne ko bokk nga ci xale yi ñu gën a yaru ci làmba ji dama lay may chance kaw may chance nag da ngeen jëflante jour boobu nag lan moo tax muy neex Siteu ci boppam comme fas yéene naa ñëw jëflanteeg sa waay day neex. baat ci lool waaye man li ma ciy xaw a laam-laamee tuuti rek mooy est-ce que la mu wax dana ko def. ça c'est une bonne question mettre une point d'interrogation parce que man yaakaar naa ni xale bu mel ni Siteu xale la nekk ci yoon di dem ne ne Lac de Guiers taxawal foo nekk naa la fa fekk mais dafa xamul ni nag Lac de dana ko dimbali yoon bii nag jëm euh, arrêt xaar mbay ma jaaga man damaa bëgg ñu bale ko takk drapeau yi. incha allah woo mbir mi dana gën a gaaw parce que dana ko déposé ana xaar mbay ma jàgg macha allah ñu woo xaar mbay ma jàgg mu génn kaaroo yàlla mën ta ah, waaw dafa dégg waaw daal. pare na ci mu ko dégg te ni ngeen ko dégg mu waxee pare na te yaakaar naa ak dëkk bu wér tamit pare na parce que lan tey la lan météo yaakaar naa kon ma rafet suñu diggante kii ñaata fan a jëm ak dimanche yaa ngi dégg kon yaakaar naa fi mu tekki kii moom lu moo fi des donc comme ni ma ko waxee sànq rek géej waay dafa am ay nit yoo xam ne boo tuddee géej waay dañ leen di tudd Père Diaw bii da cee bokk yàlla naa dogal doon waa ci moom muy mag nga xam ne mag mu baax la. ay yoon ci ay euh, xam nga daal présenté ko waa gërëm muy sunu kilifa di suñu papa suñu doon mon père maa ngi lay nuyu xoolal say yu rafet non non waaw bu la neex tam nga taxaw. Ah, waaw waaw yow ah? bu gars yi bu leen arrangé. taxaw bi baaxul taxaw bi baaxul. toogal kon toogal ak sa benn. wala kaay ma jóg kaay ma kaay ma. loolu laa la bëgg a non non non. <laughs> baax na wala baaxul ah bon ñu ngi sant yàlla ci li ci bi sant suñu ñaari waajur maa ngi sant Maodo suma sëriñ El Hadj Malick maa ngi sant sëriñ Babacar Sy ñaanal yàlla bàyyi ko fii di ñaanal waa Tivaouane yëpp di ñaanal waa Touba di ñaan waa Layeen di ñaanal waa Ndiassane di ñaanal waa Canam di ñaanal waa Niassène di ñaan bay ñaanal chrétien yi di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm suñu réew ñii yàlla na fi yàlla def jàmm may gërëm suma doom Lac de Guiers ndax man maa ngi dëkk Lac de Guiers le mot Lac de Guiers il faut ngeen xam lan mooy bu nekk ci wàllu ci leer Lac de Guiers numéro walo wàllu la dëkk mais dëkkul biir Lac de Guiers dafa ñëwoon di fa liggéey di yëngu ci wàllu làmb tudde boppam Lac de Guiers mu nekk dëkk bu mag ca Nder walla tey Nder benn Sénégalais du ko fàtte may dellu rek di gërëm Mohamed Ali Ndiaye yow doo complexe yow sportif au niveau sport fii la jëm war nga am combat dem jëli Gris Bordeaux wala nga dem jëli Tapha war na dem jëli ama seen fay ko ngeen liggéey sport foofu la topp ndax Sadio Mané mu ngi dëkk Bambali mais ci wàllu métier moo tax mu dem ci tubaab yi làmb fii ak yóbbu ci boobu niveau mënul sotti mën nañu ne rek boxeur bi nekk au niveau du Guédiawaye moom mooy travailler nga ñuy nekk ci biir Guédiawaye loolu jeex na may gërëm suma frère bi nga xam ni géej suma nijaay la suma yaay géej la sant mu sonn ci laajte gerte trop mais yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay ñu wax rek ni àdduna dox na trop trop trop en 1973 benn télévision moo fi nekkoon muy RTS am na benn jamono ma ni laaj leen nu li ngeen nuy laaj jamono yi ñëw di ngeen bëgg ku ngeen laaj te du leen ko am loolu ñëw na. ñu ngi gërëm site internet yi macha allah yéen fu la am egg yéen a fu football bi bu xabaar ak bi yéen la tu penses bien que nag il faut ñu développer temps bi gàtt na mais desal nañ lu bëri dama war a wax ci suma doom ji ndax àll lu fi ñun nekk te géejaway maa fi muy ne maa fi muy naqari maa fi ndax ñi ma nekkaloon ñuy samay kilifa di Double Less di Daouda di Balla di Aline Sey ñooñu ba ci moom Fadam dëddu nañu ñu ngi ñaan yàlla jéggal te man ma nekkoon xale bi toppoon ñooñu man foo ma seen dox rek boo ma xoolee xam ni Guédiawaye porte drapeau kon nag cër bii ngeen ma cëral ci pense bien que ni am naa cër bu nekk ca fii ci biir Guédiawaye mais lamb fii la toll la dëgër dafa war a wax ak ñëpp mais mënul bis bi ne benn suite internet ñëw ci këram mu bëgg expliquer kon wax ji day dem ci beneen dimension te champion bu mag baa ngi nii muy la dëgër nee na ko yaa mën ci mbër yi yàq sarak ndax ñun ñëwum fi polémique la suma doom la Balla Gaye suma doom la cër bu mu am ci ñaar ñii laa kon maa ngi gërëm maa ngi nga xam ni su ma nii seenee may ndox bu Balla Gaye waaye nañ ci dolli jaww bu Lac ni li ma gën a yitteel mooy ñi nak làmb ji muy brasser na nga ma xool G et na nga ma déglu na nga ma bàyyi Sénégalais yi douze millions yi wala dix-huit millions ñu tànn la ci jox la sport bu toll ni làmb ñun nag Sénégalais yi dafa ci ñu am complexe boo demee au niveau du seen karaté bi ñuy def dañ ko gérer te réew mi amuñu lu ëpp làmb cinquante neuf en nos jours Sénégalais yi soog am coupe d'Afrique ñu def ci centaine de milliards kon football bi dañ cee wàlli yaan moom nga ko tàccu loolu may wax rek ni Bira Sène arbitre yi ñi nga ko lamb ji na ngeen teg seen mbir ci yoon Lac de Guiers sénégalais la Lac de Guiers moo mën ci mbër mooy jàmbaar Lac de Guiers moo gëm entraînement Leclerc, mon Sénier. Leclerc, il est excellent. soo gisee tey barka démb ñu diggante Modou Lo ak Ama bu Modou toppoon kilim yi du mën a gagné kenn. ci ñun désormais ñun waa Guédiawaye programme nañu bépp mbër bu jógee feneen te dëkkoo Guédiawaye booy dugg suñu géej gi da nga ñuy fay ndax fi la bëri di amee doole. tàcc nañ loolu. may wax rek ni ñaari sénégalais lañu Siteu mbër mu yaru la mu baax moo xam ni mbër yi nañu xool ci moom li ñu war a xool ci moom mooy partage ànd ak nit même pas trois mu génn àdduna nga jël tabax ko dugal ko waaye jooju bi mu tëdd ci bàmmeelam mu ngi jàkkaarloog Siteu kon entre Siteu ak Lac de Guiers ay frères de sang la dañuy mayante xaalis mais nag làmb ji léegi dafa am vaar boobu mooy leeral lépp te arbitre yi bu nañu takk seen fit xam ni combat bi du du combat wu dix millions du combat wu vingt millions ay centaine de millions lañ leen fay li ñuy ñaan yàlla nag li ñu war a wax Lac ñuy wax ci micro li mu nar a def ñun travaillé nañ ci moom ci wàllu jëmmam travaillé nañ ci wàllu boppam travaillé nañ ci wàllu xelam teg nañu lépp bu ñu yàlla dimbalee ba léegi ñu gagné ci ce dimanche bon ci kàttanu yàlla Lac de Guiers dana wootewaat conférence de presse ndax lii ngeen am tey yéen sud ngeen dal képp ko micro yi pour déglu ay kàddoom en réalité lii nag na ci ma yi dem conférence de ci la ñëpp di dégg may dellu rek di woo autorité Guédiawaye yi moom dana ko woo mais man dama koy woo ndax maa ko jiitu ci autorité yi Lat Diop yow la ñu def ministre des sports nga nekk jàmbaar sa adduna yëpp joxe rek nga xam Lac de Guiers dana sentir ndax loo doon waa Guédiawaye ñoo la ko def da nga am mat ku toll ni ko xam ni jàppale woo ko ndaw Guédiawaye ngay jàppale ndaw yi liggéey ñu te bëgg nañu dem ci stade bi Lat Diop jëndal billet yi Alioune Sall jëndal billet yi Malick Gakou jëndal billet yi Ahmed Aïdara nag na nga def faire attention bu baax a baax ñun amuñu complexe pour wax la li nekk dañu la fal au niveau du Guédiawaye voté le budget ni ki jëm ci làmb ji na ci bokk ki jëm ci football bi na ci bokk ki jëm ci hôpital bi na ci bokk élève bi bëgg a voyager na ci bokk naka toppatoo lépp loolu mooy budget ñun lii ñu lay laaj du loo moom luñ la jox la ñu la séddale ko ci biir géej kon à haute voix sa frère sa mag sa nijaay gi sa lépp moo lay wax ni bisu Lac de Guiers bi da nga ci une partie yow monsieur le maire may woo maire commune yëpp Racine Talla xam ne il est excellent madame Kanté il est excellent mais El Hadj Malick yow mi jëloon hélicoptère jugal ma ci contre Modou Lo ak Lac de Guiers hélicoptère bi na naawaat nga jël centaine de millions jàppale ko jënd nag yi jënd ceeb yi jënd diwlin yi jënd biir yi jàppale ndaw Guédiawaye loolu moom laa ñëw yéen autorité Guédiawaye yi nun yéen la ñu bëgg kon nag ki lay fal daf koy fal yéen ku ci nekk mënoo fal sa benn carte sénégalais nga yor dugg ci RDP bi dugalal ko sa bopp kon bu la population gi yooyu falee bul soppi ku mel ni buur wàcce leen si terrain bi te dimbali ndaw yi bu fekkee ne nag je pense bien que ni maa ngi bëgg a yàgg ci micro bi mais maa ngi wax Balla Gaye ay question yaakaar naa tamit question yi gars yi ñun ñu fi daje nag bëri nañu bu ñëpp bëggee dugal question yaakaar naa fi fi jógi kon dañ koy tënk rek wax li nga xam ne moom mooy farata après bu ko defee moom mu dem këram dallu ñu tamit ñu tam nekkaat bi beneen liggéey ba bis ma bàyyi leen mu nuyoo en attendant ñu doog a ñëw presse bi micro ngi noonu aj la nuyoon waaw sëñ Babacar maa ngi a bi micro bi jëen micro bi defar ko waaye ndax may nuyu suma mbokk si internet yi ñoom quand c'est important rek c'est vous ajal Papis nuyoo. waaw sëñ Babacar maa ngi lay ziar. Euh, di nuyu suñu mbokk journaliste yi. ñëpp daa ci Macha Seydina Muhammad Muhammad Thank you. ziar euh, di nuyu suñu mbokku journaliste yi euh, di leen baax a baax a baax a baax ci taxawaay métti na trop ñu ngi leen di jégalu yéen ñëpp euh, di sant ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw fii tey. ñu ngi leen sant di leen gërëm ak ñi nga xam ñu téye diaspora bi ñu nekk Europe ñëpp ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ah di sant sama papa Diaw yaa ngi dégg kii bu ñuy waxtu moom fii la ñuy fanaan. kon donc kii amuñu fayam ñun waa Géejawaay ñun loolu Géejawaay yëpp laa wax wax ma la dëgg dëgg defe ne loolu Géejawaay yëpp amuñu fayam kon yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla bàyyeeg waa Géejawaay yaa ngi dégg waaw waaw tamit ñu ñaanal ñu ko baax a baax a baax yàlla ko jël fanam mu ànd ak wér ak wér li ah di nuyu suñu père Mouhamed Ali Ndiaye te combat moo tax mu jógee Paris ba fii yaa ngi dégg ci lu bëri da ciy déggoo man ak moom mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan di ko góor a di ko dëpp lépp lu seetal man rek xam na ci yoon lay jaar ba moo lay jaar ci yoon ba ma jaar ci yoon bi bu baaxul mu génnaatal foofu foofu baaxul kon donc kooku kii kenn amul fayam yaa ngi dégg di nuyu sama tons ñëpp xam nañ ko mu nekk nit baax sama moom sama kàlla fu mu toog day lekk rek waaw ñu ngi ziar suñu mbokk bambara yëpp waaye di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm ah. yàlla yàlla ko ko defal di sant ñi nga xamante ne mooy sama rakk yu baax yi nga xamante ne mooy màcc mi fi ñëw léegi léegi màcc programme di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yemale fii defet bi mu am nii yeneen combat yi nekkaat ci kanamam yàlla may ko ci ndam jàmbaar dëgg la waaye moo daanu bés boobu kon donc yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla yokk ko ci barke Seydina Dana di nuyu sama doom nday sama xarit ndigal yaa ngi ñu bokk même géej waaye man ak moom mu nekk kii Balla Gaye yaa ngi mu ñëw pour soutenir ma ci combat damay kontaan ci moom trop ñoo doon bokk di contact ñoo doon bokk di contact def lépp kon donc moom ndigal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla beneen combat mu amaat nag yàlla may ko ci ndam di ko xam ne kontaan naa trop ci moom du cuuli nag yàllaa ñëw yàlla moo ñëw mu ñàkk xam yàlla na ko yàlla yemale ci barke Seydina Mohamed ndigal yàlla na yàlla defal jàmm yàlla la yàlla fay sa xol ci barke Seydina Mohamed nit ku baax la di nuyu sama rakk ji bugaan naa borom jël bu rëy maa ngi fas maa ngi nuyu maa ngi lépp lu muy def rek yaa ngi def da ciy déggu ak man lépp luy lu mu war a wax rek da ciy jaar ci per Diaw sama papa Diaw waxtaan ceeg man ah ak sama papa Mbaye Diaw waaw kan na ko yàlla defal jàmm bëgg naa ah. di ñëw nag ci sama doom ci sama xarit sama lépp muy Chine waaw kii maanaam sama lépp. la papaam génn ak man la ko dégg. bu yëkkati ko nanoo lan lañ def ay yaxam laal ak sama doom ba lépp. lu sonn mu ciy sonn trop lu mu dugg mu teg ci loxo combat bi mayu ma jàmm bokk si suba bokk si ngoon bokk si guddi xeex la bañ na ko arme sax laa nekk nii. bëgg xeex moo tax mu dem ba arme kon donc kii yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla bàyyi waajuram bu jigéen. yal ma yàlla bàyyeek moom ci barki Seydina Mohamed di nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi toog bu dugal lan dégeen di ci veillé lay sant di la gërëm passé Mohamed Ali Diagne ndax combat bi dañ cee nar a xeex ndax tey gis na indi ci biir point de presse bi tiij ko te ku xam ko sii xam loxo yi dafay wax kon làmmiñ ndax danaa jël décision xeex ci combat bi boo koy sama question bi njëkk bi ci des pourquoi nga choisir point de presse dañu doon xaar open presse ñaari question laa am di ñaangal nga ci am jërëjëf. macha allah tontu ko. waaw Fadel ñu ngi kontaan baax si wax ci question yi bon premièrement kon képp champion du monde ak sama doom Jules ñoom ñëpp ay sportif yi nga xam ne ci wàllum xeex dañ ciy yëngatu baax a baax a baax xam nga làmb moom boo dee bëri di yaa ngi dégg kon donc tey bu yàlla defee li nga xamante ne muy bëri waaye bi wàll def ko ci man dañuy wàll sama doom day Alioune Seye numéro 2 tey lu bëri ma bëgg sama mbokk yi yaa ngi dégg maa ngi koy sant di ko ñaanal ci li mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam lu rëy rëy Alioune Seye numéro 2 yaa ngi lu bëri ma bëgg sama bopp yi kon donc bu dee ba nga xamante loolu moo xam sama bopp yi li ci des moom mooy xeet bi ci combat bi moom la Aliou Ndiaye sama doom ji waaw jàmbaar waaw li nga mos a wax ñu doon xaar open press nga def point press lan la. waaw loolu lépp jàmm rek xam nga am na loo xam ne tey boo ci demee ba koy def yaa ngi ko fa def. boo demee ba koy def da nga def lu wóor lu dal sa xel point de presse moo dal sama xel bàyyi ko damay fàtt foofu. am na solo. Fane loolu toog nañ la kon léegi waaw Fatma gars yi suñu séeréer fi nga toog ba Fatma di gëwëlee ko ayca Fatma. ayca maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ah di ziar suñu Papa Perdio di koy ziar di ziar fi nekk ñëpp di leen jox seen wàccuwaay man sama première question mooy Lac de Guiers numéro 2 gis nañ ni yaa ngi ci seen côté communication gis nañ ni da ngay gaaw a énervé wu bu la la waxee rek da ngay énervé lan la lan moo xew da ngay jàpp ni daf lay dépassé wala dafa am lu lay dérangé ci moom ndax gis nañ deux circonstances yëpp da ngay énervé wu trop trop est ce que loolu tamit boo ko yóbbee ci géew bi dina baax deuxième question bi mooy tey dañoo gis ne Lac de Guiers bu am détermination taxaw. dëggal boppam ne géejawaay laa dëkk géejawaay laa dëkk boobu lan la da ngay jàpp ni dañ la seet ci biir géejawaay wala dañ koy sant sa bopp wala lan la li tax tey nga ne géejawaay laa dëkk merci beaucoup. première question bi moom moo nekk ma première question bi pardon ah. mooy gis gis nañ ni heure bu waxee ak yow. ah ok waaw d' accord d' accord non euh, ma fille non énervé xam nga man maa mën a yooyu ay détails rek dañuy tooñ rek xam naa tey def moom rek waaye loolu dara man si lu mun maa mer ko mais lamb ji lamb ji ñaari combat laa bëri su ma duggee ci biir réew nga xam ne moom mer lépp lu may dem sama xel laa ciy dem déggoo ma de dañ bàyyi bés li nga xam ne man merum ko concentration man sëg bàyyi beneen bis toppat moom mooy géejawaay bi waaw géejawaay laa ko waaw xam nga géejawaay ñun géejawaay lañ am yaa ngi dégg te bu ma demee ba soxla maye GST euh, dama bëgg nit ñi xam na rek man Guédiawaye laay jiitaloo moom laa am te moom laay am. moom moo demee jiitu ñun amuñu fayu GST amuñu seen fay parce que fu ñu jël di jàmmaaroo rek ñu yóbbu suñu drapeau kon donc ñun tamit war nañ leen delloo ci kër waa GST moo tax mosal drapeau bi dina am 10 GST. mais mais comme que duñ ko laajee nekkul ay 6 ak yooyu moo tax. non wallaay du loolu. non non non du loolu. loolu géej waay ñun ñoo bokk ndey bokk baay. waaw fii moom loolu amul. jàmm fi am daal waaw jàmm rek. voilà dañuy toll nii dañuy toll nii question Fatou Ndiaye rek. nag li ma laajoon deux heures oto Ouma Sène laa lay laajal. dama la fekk si oto bi ñëpp di la laaj pourquoi ba bi suuf rek ba jël Moussa adversaire am loo ma tontu da ne moom lu wóor laay def su ma gisee lu wóor dem su ma gis lu wóor moo def mais combat bi. ñun dañuy dox ci mbedd mi dañuy dégg ci porteel yi ñi lay déggee yëpp kon nag am ñoo xamante ne dañ ne laaj a bu abdicé pour amul si kaw si ñu bàyyi ko. nekkam loolu pare nga pour loolu wala déet. deuxième bi est-ce que mos nga am adversaire bu mel ni Siteu. baal ma baal ma doon ci benn baay. waaw ñun benn baay may fàtte. nee nga lan euh, la gerte baal bi Siteu ndax may dem ci kaw Siteu wala ma dem ci kaw Siteu. même su ma dem ci aussi ak xel laa fay demee du ma dem ak korof korof su ma dem ak xel laa fay demee te su ma demee ak xel laa fay demee bët yi ma lay xoolee sax xel laa lay xoolee mais su ma demee ak xel laay demee ak xel laay demee. waaw loolu leer na est-ce que mos nga am adversaire bu mel ne Siteu bëri coow Siteu bis ni mu bëri Papa Sow comme ni ko Fatma Diop léegi da lay jàppuse. yëngal la jumloo la pour mën a am sew dara pour am fu mu la jaar pour am doole léegi daal koy sóoraale benn bi may may jéglu nag Mouhamed Ali Ndiaye laa koy posté ndax am na mbaa ko jógee France ñëw ndax sa bis am na wax yow mais Mouhamed Ndiaye gis nga li nga xamante ne moom mooy Siteu fi mu jógee mu déparé ñëw jël Lac de Guiers te gars yi nee nañu palmarès yi bokkul léegi moom bi ngeen préparé Lac de Guiers de façon dañ koy xeexloo dañ koy bëri lool da nga wax dañ koy duma wàcce ko lan arrêt. arrêt xar bay ma jàkka waaw loolu la toog na merci. on question bi nga jëm ma sa question waaw sa question ci nag lan la. si te. adresse moom adresse la boo xamante ni est-ce que mos nga adressé benn si te. waaw su ma waxee tontu ko ok non adversaire yi ma am ak ak Siteu du benn Siteu moom mooy troisième génération bi nga xamante ne bu mënul bokk ak yeneen adversaire quoi et c'est normal waaw mais tamit euh, bu fekkee ci wàllu psychologue yooyu noonu man façon coow bu nekk encaissé naa teewul damaa dem ak sama xel waaye ñu ñu bëri ñu gën a daaw si ne laa bëri na ngeen am waaw da ngeen yaakaar ne ñun ñu ko daaw si daaw si laa bëri ok kon mbooloo bi daal jiitalu la ak yooyu. non non man lay fan si jàmm. man lay fan si jàmm. waaw ak wóoram. voilà lu leer la. am sama mbokk pël yi nekk foofu noonu. ñu leen baax a baax pël yi nekk foofu Fora jaaykat nag yi nekk foofu ñu leen di bëgg baax maa leen di nuyu en passage. am na solo ni liggéey bi wàll bi ci gën a am importance mooy la récupération très très très important te tey yàlla def na la de guerre ñuy liggéey ba léegi wax dëgg yàlla bu ñu nee 6 heures. 6 heures dina taxaw xaar ñuy liggéey li ñuy liggéey ñu ñëw 17 heures école ba 17 heures mu li ñuy liggéey teel a commencé teel a bari discipline totale pour wax la. am na loo xam ni jarul laajte la dëgër mi boo ko gisee mu toog xam ni pare na am na loo xam ne nag tey jii comme ni ma la rek jarul wax ju bëri la dëgër dafa am loo xam ne mi ngi ci moom nekkoon ci moom doon nelaw ñu defoon programme Lac de Guiers waroon na ñëw France comme ni ma la ko waxee rek programme bi faussé parce que à cause de Mame Boye Diao li ñu programmé woon yàlla def na mu jëwul sotti mais moom on met une parenthèse parce que romb nañ loolu on a eu un plan B tey nag euh, ça fait trois semaines man ak Souleymane ak Rôle wax dëgg yàlla ñuy liggéey boo xamante ni tey je pense que ni c'est la première fois ma koy liggéey ak mbër mooy jëflanteeg mbër yi loolu dinañ ci ñëw après pour wax la ni nag dimanche di tax ma ne leen Siteu li mu bëgg la déguère dina ko ci fekkali parce que day gën a gaaw ari jal mbay xam nga bu ñu nee nañu takk nañu bale koñ ñi takk drapeau yi dañoo bëgg mu leer fair play jàmm gën fair play ci jàmm ak ci salaam ñu yëkkatil leen seen mbër moomu déposé ko arrêt jàll mbaa day neex baa ngi ci loolu mais xeex ak bëri c'est par force loolu amul sax salaamaaleykum kon daal di génn bi a xam ne bu fi jógee ñu yor colonne bi seen xel dinañ ko daj. dañ bàyyi ba yegg ci dimanche. ok deuxième question bi mooy dañu remarqué si que mu dugg ci làmb premier combat ba ko mas a jox da lay dominer ci wàllu supporter. waa Géejawaay fan lan toll gis nañ ne am na Cheikh Super Jamono gis nañ ne combat bi passé ba ci moom ak ko waasaw souvent day rek Papa Sow sax xàmmeewu ñu leen ci stade bi ban mobilisation ngeen di waaj ba bu ne ana ñi ànd ak la dëgër ñëpp yëkkati